waaw salaamaaleykum waa àdduna tey nag maa ngi fii ci hopital Dalal Jàmm bu Géejawaay maa ngi leen di ñaan képp ku gis vidéo bi na nga ko partagé te yàlla tax parce que dafa am lu garaaw loo xam ne mi ngi xew ci hopital bi te kenn waxu ci Sénégal ba mu daj benn machine scanner public la am pour ñi nga xam ni dañoo am cancer te machine bi instant bi dafa pan kenn réparé wu ko jënduñ tamit machine bu bees actuellement soixante seize personnes dee nañ te 578 patients ñu ngi toog di xaar pour def scanner te ba léegi machine bi lañuy xaar ñooñu seen cas mi ngi gën a aggravé wu te mën na tax ñu dee am na tamit yeneen nit yoo xam ni bëgg nañ def scanner mais lisse bi dafa gudd ba mënuñ leen jëlaat ñun ñu ngi xam ne ñu ngi xëy chaque jour di dox suñu soxla mën na am cancer mu ngi suñ biir yaram te xamuñu ko donc ëllëg mën nañ soxla def scanner ñu ne machine bi moo paan ba léegi ñun tamit ñu am problème balaa loolu yëpp nag di yegg si na ngeen partager vidéo bi ñu fexe état bi jàpp si réparer machine bi wala ñu jënd machine bu bees ñu ngi wax naan Sénégal juddoo fi sax nattu la mais Sénégal feebar fi mooy nattu parce que dëkk bi ce qui se passe c'est trop c'est trop ñu ngi tabax ay tali ay state ay leneen ak leneen mais ñun bu ñu warul duñ leen mën voyager wala ñu dem naan dañuy dem stade wala dem ay salle de concert donc nañ si jàpp ah nañ si jàpp waa baax